sunu boroom tabaaraka wa taala yebal na yonent bu ñu wax yunus ca dëkk bu ñu wax Naynawa ca Iraq yonent yàlla yunus alayhi salaatu wassalaam di waar ay nitam naan leen nañu jaamu yàlla te wéetal ko sellal njaam gi ngir moom waaye nag ay nitam ni ko déet ñun duñu wéetal yàlla de sunu xërëm yii lañu xam ñoom lañuy jaamu yonent yàlla yunus alayhi salaatu wassalaam di leen fàttali di leen waar ak di leen xupp naan leen faw ngeen jaamu yàlla wéetal ko te sellal njaam gi ngir moom lu ko moy yàlla dana wàcce ci seen kaw am mbugal fii ak ñetti fan waaye nag waa dëkkam fetteerlu ni ko mukk ñun sunu xërëm yi lañu xam xamuñu sa yàlla ji sunuy xërëm lañuy jaamu yonente yàlla yunus alayhi salaatu wassalaam mere waa dëkk ba daa di génn dem aw yoonam lu jiitu yàlla di ko jox ndigal mu foog ni yàlla du ko def dara ci lii mu def waaye nag ca suba sa yàlla ñuulal asamaan si lool wàcce saxaar su bari lool ca dëkk ba waa dëkk ba yépp jaaxle di war yonente yàlla yunus alayhi salaatu wassalaam waaye nag gisuñu ko ca yàlla mu baax ma dimbalee ñoom waa dëkk ba yépp gëm yàlla gëm yonent yàlla yunus alayhi salaatu wassalaam waaye nag yonent yàlla bi yégul ni waa dëkk ba tuub nañu ba gëm nañ ko moom ma nga toog rekk di xaar mbugal ma wàcc seen kaw ba ñetti fan ya matee mu delluwaat ca dëkk ba waaye nag ba mu delloo mu fekk fa lu ko fa bett lool la ko bett mooy ni waa dëkk ba gëm nañu yàlla gëm ko moom tey jëf-jëf ju baax moom yonent yàlla bi daldi tiit foog ni waa dëkk bi dañ ko jàppee ku dul wax dëgg te kat waa dëkk bi seenu charte mooy ku dul wax dëgg dañu lay rey ca saasa yonent yàlla yunus alayhi salaatu wassalaam dawaat génn dem ca tefes ga ba mu demee mu séen ak gaal gu yeb ay nit di dem mu sàkku ci ñoom ngir ñu yeb ko yóbbaale ko waa gaal ga d'accord yeb ko ba ñu demee ba ca biir ndox ma ngelaw lu bari lool tàmbali nag gaal ga di yëngu waa gaal ga ni sunu mayuwul de gaal gi dana suux te bu suuxee ñun ñépp daañu dee ndax li ko waral mooy gaal gi li mu yëpp daa bari léegi nag faw ñu wàññi kenn ci ñun sànni ko ci ndox mi waaye nag lu jiitu loolu dañuy wantale ku bant bi dal ci moom ñu sànni la ba ñu wantalee bant ba dal ci yonent yàlla yunus alayhi salaatu wassalaam ñoom nag bëgguñu ko sànni ñu defaat ko ñaareel bi yoon ñetteel bi yoon saa bu nekk rek muy dal ci yonent yàlla yunus moom ci boppam nag mu daal di sànni boppam ca ndox ma ba mu ko defee yàlla yebal jën wu mag jën wa wanne yonent yàlla yunus alayhi salaatu wassalaam ba ko jën wa wanne daldi nuur ak moom ci biir ndox ma mu lëndam lool am njàqare lool waaye nag déewul mom nak mang biru ca biiru jeun wa di ko boromam ngir bëgg ku ko xettali muy wax naan la ilaha illa anta subhanak inni kuntu min alzalimin zalimin. bam ko waxe yalla dimbalé ko jeun wa gëq ko yalla muuree ko ay xobi naaja ngir man ko muccel ci weñ yi ak ay lorange. fexé mu delu wat delluwaat ca dëkk ba nak fekk ñom ñepp ñu gëm yalla di wétal mu kontaan lool waaye nag mu jàpp ni lii ko dal natt la bu jógee ca yàlla ca la nekk ca dëkk ba di leen waar ànd ak ñoom di jaamu yàlla ba borom bi moom ko foofa kon li ñuy jàngale yéen mbokki jullit yi mooy ñaan gii di laa ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min alzalimin yonent bi alayhi salaatu salaam nee na képp ku nekk ci jafe-jafe mbaa ci jaaxle mbaa ci njàqare nga wax ko yàlla dina la muccal ci njàqare ga ci jafe-jafe ja ci gàllankoor ya yàlla sax wax na ni falawla annahu kaana min almusabbixiin la labitha fi batnihi ila yawmi yubaathuun yàlla mënu yonent yàlla bii di yunus su fekkoon waxul woon ñaan gi konoon dina des ci biiru jën wi ba keroog àddunay tukki waaye nag ñaan gi moo ko xettali yàlla waxaat ni fastajabnaa lahu wa najjaynaahu min alxammi wa kadalika nunji almuminin yàlla mu ni ba mu waxee ñaan gi ci lañu ko muccal nangul ko ak ñaanam muccal ko ci lëndëm lëndëm yi mu nekkoon waaye nag yàlla mu ni nii day lay muccalee mboolem ku gëm yàlla tey ñaan ñaan gi kon nag ak ñaanangoog gu am solo mbokki jullit yi gu mat a bàyyi xel مي لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين